Magalu Touba 2023 bokk na it tamit aussi euh, li ñuy waxtaanee ci marché yi ñu ngi fii ci euh, lu jege marché Ocass fii ci Touba maanaam bu tawee yoon bi kenn dootu ko mën a jëfandikoo ngir dugg ci biir marché yi te loole nag mu nekk ci assainissement bu Touba. mu nekk mbir bi nga xamante ne askan wu bëri ak it tamit aussi ñi ngay xamante ne ñoom ñooy jëfandikoo yoon boobu wax nañu jafe-jafe yi nga xamante ne yooyu la ñuy jànkonteel ngir ñu dugg ci biir boobu boobulee ñu yor oto wax dëgg yàlla ndax métti na méttiwaay boo xam ne nii moom foo ko natt rek passé na ko ndax moom dem bi métti na dikki bi métti na. mu tooyee nii yoon yi moom doy na waar lool lool lool lool surtout ñun suñu du yoon bi nga xam ne mooy jëm Daaru Tanzir ñëw ñëw si marché occas bi métti na trop si ñun chauffeur yi wax dëgg yàlla oto yi. waaw melokaanu yoon yi mooy li nga xamante ni ñooñu jàppalewul rek parce que boo xoolee wax dëgg yàlla neexu ba neexu mais Touba ci kanam jàmbaar la lu man mi koy def mais ki nga xam ne moo sëcc Touba ci kanam nag wax dëgg moom moo échec. koy am bu baax parce que ndox mi moo tax ndox moo ñu handicapé ndax ndox mi demut amul fenn fu mu taw fa lay taa continué ñu doon defar dara baaxu mu nekk problème assainissement bi nga xamante ne ñu ngi koy jànkonteel ci diggante Euh, yoon Madiana boobu ak euh, marché Ocass mu nekk ay jafe-jafe yi nga xamante ne ñu bëri jàpp nañu ni na gàllankoor bu baax a baax jaaykat yi ak euh, commerçant yi ak ñëpp yi nga xamante ne ñoom ñooy laal altaab bu taw bi ñëwee dinañ am ay jafejafe ngir ñu am ay clientèle bi nga xamante ne moom mooy dugg moo ne de économie bi boo moyul ci nawet gi nii nii ni ndax ay inondation war na mun a sooxe bu baax a baax ci magal biile